ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dalee nag jàmm ci xibaar du nga nga xam ne rek moom moo di ñu xamal kay démb kay ñi nga xam ne rek da ñàkkante defante la wonante dëgg sursaay yéen ak Walfadjri di ñu xamal kay démb kay daanaka xam ne rek moom moo di Dakar soppi nañ ko safara taal kay laati bin yéenekaay duñu xamal ne takk der kay démb ay jafe-jafe dëgg dafa mel ni la ñu amee woon ndax Dakar démb yëngu na lool ndax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko nañu fi nga xam ne rek moom moo di Ndakaaru Njaay Les Échos xamal ne ko dalee Sacré-Cœur waaye nag fi nga xam ne rek moom moo di France foofe itam yëngal ko maanaam daal réewum Sénégal bëri na foo xam ne démb ma nga doon jax-jax enquête yéenekaay duñu xamal ne ñi xam ne rek ñoom ñoo di farandooy Ousmane yi kay démb dañoo meroon yàqate fi nga xam ne rek moom moo di Ndakaaru Njaay Walfadjri yéenekaay duñu xamal ne ñoom kay yàq nañu yëngal nañu Ziguinchor ba Louga yëngal nañu waaye tamit ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci kujje gi àndu nañu ak ki nga xam ne rek moom kay jot dem ci ki nga xam ne moo ne ko Mame Diarra Fam itam dem na a njàppandal gi nga xam ne rek amee na ko ci Ousmane ne farandooy nañu ko waaye moo moo naroon a ñàkk bakkanam l'observateur yéene kaay duñu xamal ne mbir yi kay waaye am na lu toll ci ñeent fukk ak juróom yoo xam ne jotoon nañ leen a teg loxo yéenekaay bi dañu xam ne nekk lu jëm ci wàllu enquête ba section de recherche pare nañ ci jamono ji ba jébal ko parquet procureur Serigne Bassirou Gueye moo def moom sax war naa yëkkati ay kàddu source ay yéenekaay duñu xam ne en daal mbir yi metti woon na lool démb ndax am na benn policier boo xam ne am moo la ñu ko tuus mu daanu li yéenekaay duñu xamal ne farandooy Ousmane Sonko yi kay démb wane nañu seen doole kii nga xam ne rek moom moo di la ca topp nërta yomb réew mi yéenekaay duñu xamal ne ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa Yaana Mar yeneen wax ji jamono ji kay moo bëgg a faagaagal ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci kujje gi maanaam démocratie boo xam ne amul wax li yéenekaay dikk ci mbirum Adji Sarr di ki nga xam ne rek moo waral coow gi duñu xam ne Adji Sarr kay ku yàgg yëngal la ndax kay jotoon na am aw far woo xam ne ndekete yow mbaraan gu metti la nekkoon moom Adji Sarr indi woon fa scandale bu rëy. ak El Hadj Ousseynou Ndiaye.